bëree bëri lay bëree bëri te lay bëree bëri laa ñaari yoon Omar xoolal sos Cheikh Omar sos Moussa Ndoye sos Moussa Ndoye Cheikh Omar sos Moussa Ndoye eh. sos le requin sos ak Moussa Ndoye sos Moussa Ndoye la ilaha illallah moo ko waxoon moo moo ko waxoon yaa ko waxoon sos waga la moo ko waxoon moo ko waxoon kaay kaay sos sos lan la sos lan la sos lan la ay waay ay waay ay waay ay waay borom bu ko ràccati alaaji pour ay waay lamb lii la namu lii la sos Moussa Ndoye day dëggal boppam sos lan la sos sos lan la sos lan la la moo day soof dama koy lekk mu war a laaj samay muy ruux muy taxaw di expliqué day ruux li muy wax nii bokkul ak li muy def li muy ak li muy def bokkul dañoo ñu may ko mais gi nga xam ne amul doole du futeeku dama am doole mën a futeeku ñu koy dox ci moom la des ci moom mooy ruux laa la waaye dama xam lu tax muy ruux xaw ma si lan la ngeen koy laaj. yàgg na combat bi soxla ma si xaalis pourbe laa soxla pourbe lamb dama ko xoolal pël lamb dama ci am wàll lamb may jëngal doo dooraa soo soosaat te lamb ji dara xewul waaye kii dama koy kii dama koy joob dama koy joob dama koy wàcce nga la kees bi nga bëri na ma aw ma aw kase aw ma kase ku wedd laajal sama ménageur ah. aw ma borom kese ci Moussa Ndoye la des moo xam na loolu lamb ci moom la des ah. ah, dogg la ma la mooy tàppat bu mag bi buñ dee moo xale yaay tàppat bi jëntuma la yow salari jiin bismilaay ma dee ci door maam góor gi njaay sëtub maram jiin bàyyi maam maram njaay réew maa ngi may soow te ko réew mi soow booba danga njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu ma dalee jiin booba tuuti laa booba ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb nay bari te nay baree bari